alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen MALBN bu leen fàtte bës kolos bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. mbokk cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh ibnu maam cheikh Serigne Bay naan asalaamualeykum. alhamdulilahi wakafa wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira asalaamualeykum wa rahmatullah. mu ne asalaamualeykum wa rahmatullah. mu ne yéen samay mbokk. samay mbokki taalibe ne leen di nuyu ci turi mbooleem suñuy mbokki taalibe mbokki taalibe yi nag ne mu ngi ciy jiital mbokki taalibe yi dëkkee fii ci Medina Baye gii dëkk ci pey bi di dund ci pey bi xam xaqi pey bi di wëttandeku lépp luy yàq pey ñun ñi ñëw dañ nekk suñuy njaatige ne mu ngi leen di nuyu yéen ñépp ku ci nekk ci daraja bi ko yàlla sédd mu ngi koy nuyu gisee ma njëkkee. ne boo gisee mu njëkkee. ci mbokku taalibe julli mu ngi commencé ci liqaam. julli ngi commencé ci bu sël bu imaam jiitee julli gi hem ci sëlmal. bon nag. ñu njëkkee liqaam. ne mu ngi nuyu. suñ mboole mbokki taalibe yi di ñaan nag kenn ku ne ku nekk ci ñun suñ mbokk suñuy jarbaat suñuy jarbaat liggéeykat suñuy mbokkum liggéeykat muy imaam Cheikh Tidiane Cissé te liggéey na biig tey ñu huutu ko ci jotaay bii ñu daje tey mu bëgg ñun ñépp ku nekk jàng faatiha benn yoon ñu ñaanal ko yàlla gàllankoor bi ko téye yàlla teggi ko ba su déwénee ñun ñépp ñu bokk toog mu toog ak ñun yal yàlla def loolu yaara bi ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu bismillah amin yaa rabbi yal na yàlla def loolu mbokk yi mbokk yi ndege ni si daaw lañ fi teewoon ci waxtu wi yàlla dimbal nañu teewaat fi nañu ren ñu teewaat fi buñ fi teewee moom la neex buñ fi teewee moom yàlla la neex teew nañ fi te ànd ak sago teew nañ fi te sago waaye lépp waaye lépp nag ci suñu barkeb sëriñ la kon yéen suñuy mbokki taalibe ne mu ngi ñuy nuyu bu baax a baax a baax sooga nuyu sëriñ bi nag di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko fi. ndax mooy suñu tiitar. ndax mooy suñu tiitar. mooy suñu mooy suñu sakk. mooy suñu kaaraanga. mooy suñu kaaraanga. mooy suñu Baay Ñas. mooy suñu Baay te Baay mooy lépp. te Baay Ñas lépp xam ngeen. te lii ma mu bëgg a wax. man ko fekkee. moom daf koo fekkee. fii. ci barab bii. ci mbaar mii. di waxtu gàmmu muy nawet muy nawet yàlla ji taw yàlla ji taw ba fitim baay ba fitim baay ndox mi def ko mu mel ni mbaq ndox mi def ko mu mel ni mbaq ñu bënn ko ñu bënn ko taxut baay jóg taxut baay jóg ndox mi sotteeku ci kaalaam gi ndox mi sotteeku ci kaalaam gi boo xoolee faasam yi boo xoolee faasam yi dafa mel ni danga dëbb seetu tey ko taf ko ci faas yi mel ni dangaa dëbb seetu taf ko ci faasam yi muy muy melax. gàmm googu. gàmm googu. bi bët setee. bi bët setee. bàyyi mu ne. bàyyi mu ne. yonent bi sallallahu alayhi wa moom ñu ne fanaan ci gàmmu gii. moom ñu ne fanaan ci gàmmu gii. ku gis na la. ku ko gis gis na la. gis na la. ku ko gisut gis na mu ne. mu ne. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi mooy buntab yàlla ci kaw suuf. mooy buntab yàlla ci kaw suuf. kenn du egg ci yàlla. kenn du xàgg ci yàlla. te jaaroo ci buntab Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. te jaaroo ci buntab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mu teg ca mu teg ca ne. jaam bu xeebu bii. jaam bu xeebu bii. mooy buntab yonent sallallahu mooy buntab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fekkee naa loolu. moom mii nee na fekkee ne jotaay boobu. kon nag. kon nag. ku ko siyaare si. ku ko siyaare si. yonent nga siyaare. yonent nga siyaare. ku siyaare xalifaam. baay nga siyaare. ku siyaare baay. yonent nga siyaare. ku siyaare yonent. sa mbir mët na sëkk. kon nag. ñun taalibe yi. nañ takkuwaat. nañ leen takkuwaat. te góorgóorluwaat. te góorgóorluwaat. maa ngi ñaan. mu ngi ñaan. fii. fii. na daraja ji nekk di benn ñun ñëpp ñun ñëpp ku ci ne ku ci ne fa nga nekk fa nga nekk yaa ngi fay am teraanga yaa te wóor na la ne te wóor na la ne jëlewoo ko ci sa ndey jëlewoo ko ci sa ndey du sa ko ci sa baay du sa famille jëlewoo ko ci sa famille ci nangul baay topp baay ci nangul ko boo xamee boo xamee. wax xam-xam ba leer. wax xam-xam ba leer. mbootam bàyyi ca dugg. nit ña déglu la. mbootam bàyyi ca dugg. boo ñaanee mu nangu. boo ñaanee mu nangu. mbootam bàyyi ca mbootam bàyyi ca dugg. boo waxee mu neex. boo waxee mu neex. mbootam bàyyi ca dugg. mbootam bàyyi ca dugg. bu la nit toppee. bu nit ñi toppee. mbootam bàyyi ca dugg. ca dugg. loo mën a nekk rek. loo mën a nekk rek. mbootam bàyyi ca dugg. mbootam bàyyi ca dugg. nag. gannaaw. gannaaw si. xat xat rek. xat xat rek. ngay ñëw toog ci jotaay bii. ngay ñëw toog ci jotaay bii. li ci des yëpp yaa ngi ci sa bopp. li ci des yëpp. ci temps yaa ci sa bopp. ñëpp nag ci seen bopp lañ seen bopp lañ nekk. nag ci seen bopp lañ nekk. man mii sax ci sama moom mii sax ci boppam la nekk. waaw gannaaw moom moomam lépp. waaw gannaaw moom moomam lépp nag. lépp ko moom. suñu lépp moo ko moom. ñun ñu nekk ci suñ bopp. ñun ñu nekk ci suñ bopp. defaluñ ko dara. defaluñ ko dara. te dara yàquwut. te dara yàquwut. kooku ñun ñëpp war nañ koo ñaanal yàlla. kooku ñun ñëpp war nañ koo ñaanal yàlla. ku ñu ko mën a fayal nag. ku ñu ko mën a fayal nag. mooy borom bi tabaaraka wa taala. mooy borom bi tabaaraka wa taala. yow yàlla yal na ñu fayal bàyyi. yow yàlla yal na nga ñu fayal bàyyi yaara bi. yow yàlla. yow yàlla. yal na yal na nga ñu fayal bàyyi. fii ci àddina. fii ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira ñi ne ci capital yi ñi nekk ci capital yi ñi ne ci tool yi nekk ci tool yi amul benn muqaddam bu nekk ci capital bi tey amul benn muqaddam bu nekk ci capital bi tey lu mooy ba nga demee da nga doon luyaas lu mooy ne ba nga demee danga nga doon luyaas di fay ci barke baay di fay luyaas ba ci barke baay dem ba neex nit ñi ci barkeb baay. dem ba neex ñi ci barkeb baay. loo wax mu neex leen ci barkeb baay. loo wax mu neex leen ci barkeb baay. nga dem ba jënd kër ci barkeb baay. nga dem ba jënd kër ci barkeb baay. xam oto ci barkeb baay. xam oto ci barkeb baay. mbooloo topp la ci barkeb baay. mbooloo topp la ci barkeb baay. te boo leen waxoon ne yëkkati leen oto bi ci barkeb baay ñu yëkkati ko. te boo waxoon mbooloo ma ne leen yëkkati leen oto bi ci barkeb baay. ñuy yëkkati oto ba. waaye kon booy booy ñëw ci bàyyi nag. waay waay kon booy ñëw ci bàyyi nag. waay waay boo ñëwee ba gànjaay. waay waay boo ñëwee ba gànjaay. sippil sa daraja. sippil sa daraja. wëcc fa lépp. wëcc fa lépp. dox ak tànk. dox ak tànk. ñi la topp futteeku. ñi la topp futteeku. nga dox ak tànk ba egsi. nga dox ak tànk ba agsi. lu ma xam fii laa ko jëlee. wan leen ne lu ma xam. fii laa ko jëlee. loolu mooy ngor. loolu loolu mooy ngor. loolu. mooy ngor. waaye. waaye. dund ci baay. dund ci baay. tedd ci baay. tedd ci baay. lépp nga xam ko ci baay. lépp nga xam ko ci baay. soo xamee xew. soo xamee xew. bu ci bu ci doomu baay ñëwut. bu ci doomi baay ñëwut. sa xew li soof. sa xew li soof. fokk nga fexe ku ñëw. fook nga fexe ku ñëw. booy ngénte doo ci xóolu sa bopp. booy ngénte doo ci xóolu sa bopp. boo xamee xew doo ci xóolu sa bopp. boo xamee xew doo ci xóolu sa bopp. lu mu mën a doon doo ci sa bopp. lu mën a doon. doo ci xóolu sa bopp. ka taaral jox la daraja. ka lay taaral si jox la daraja. nga bëgg àddina be. nga bëgg àddina be. boo ko xooyee ba mu ñëw. boo ko xooyee ba mu ñëw. nga liggéey ponkalam piliyaan. nga liggéey ponkala piliyaan. diggante fi ngay toog ak suuf daanaka mën na meetar. diggante fi ngay toog ak suuf daanaka mot na meetar ci kawewaay. jël doomi baay teg ko ci suuf. jël doomi baay teg ko ci suuf. toog ñëpp di seen. toog ci kaw yow ñëpp di la seen. caméra yëpp di la jam. caméra yëpp di la jam. nga foog ne loolu dana wéy. nga foog ne loolu dana wéy. billaahi du wéy. billaahi du da ngay nax sa bopp. du wéy tey. du wéy tey. du wéy du wéy xëlëg. damaa placé nag pour wax ko. dafa placé nag pour wax ko. su ma doon sëriñ. su doon sëriñ. ni xalifa bi. ni xalifa bi. amul droit wax ko. amul droit wax ko. parce sama bopp laa ne. ndax ci boppam la nekk. waaye. waaye. Cheikh Serigne Mbaye. Cheikh Serigne Mbaye. taalibe Baay Ñas la. taalibe Baay Ñas la. loola mooy tiitaram. loola mooy tiitaram. rakki Baay du tiitaram. rakki Baay du tiitaram. taalibe Baay laa mooy tiitaram. taalibe Baay laa mooy tiitaram. wax na ko ci kanam Baay. wax na ko ci kanami Baay. ñaan loo mbokk taalibe yi. ñaan loo mbokk taalibe yi. nañ ko ñaanal mu doxab taalibe. Serigne Mbaye taalibe la. Serigne Mbaye taalibe la. Baay moo ne ko. baay moo ne ko. yaay magam taalibe yi. yaay magam taalibe yi. man mi wax. man miy wax. doomi magam taalibe laa. doomi magam taalibe lay taalibe laay taalibe laay waxal nag. taalibe laay waxal nag. waxut ak sëriñ si de. taalibe yi lay waxal ne na. ndax. ndax. lépp lu ñuy yàqal ñu ba ko. lépp lu ñuy yàqal ñu ba ko. ñuy njëriñ ñu tegu ci yoon. lépp lu ñuy njëriñ ñu tegu ci yoon wa. baay mii. baay mii. kenn mënu cee jëriñu lu ma ci xanam ak taalibe. kenn mënut cee jëriñu lu ma ci xanam ak yàlla bu ñu rëcc. yàlla bu mu ñu rëcc yaara bi. rekki. yàlla bu mu ñu rekki. rekki na ñu bëri xamuñu ko. rekki na ñu bëri te xamuñu ko. jëndal carte orange. jëndal carte orange. wala tigo. wala tigo. carte la de. carte la de. te bind na ci mbind mi. te bind na ci mbind mi. nga xoos ko. nga xoos ko. jël secret bi. jël secret bi. def ko ci biir portable bi. def ko ci biir portable bi. Seydou waa këyit waa ngi fi mbind maa ngi fi waaye jéem koo jël yow. waaye jéem koo jël yow. bëgg koo def ci beneen portable. mën na cee boole sa portable de. mën na cee boole sa sa portable de. kon kon. secret ba jeex na. secret ba jeex na. waaye këyit baa ngi fi. waaye këyit baa ngi fi. mbind maa ngi fi. mbind maa ngi lépp ngi fi. lépp ngi fi. ku ñu rekki. ku ñu rekki. léppam noonu lay mel. léppam noonu lay mel. dana lekk da nga naan da nga xam jabar. waaye doxoo dara. yal nañ ci yàlla musal. mu bëgg. mu bëgg. pay bay bii. bay bii. nañ préparé xaat. nañ préparé xaat. tuub te dellu ci yàlla. te dellu ci yàlla. te jéggalu Mawlana Cheikh Ibrahim. te jéggalu Mawlana Cheikh Ibrahim. lépp defal nañu ko. defal nañu ko. defaluñ ko dara. ndax di ko dundee. kon nag. nañ fonk pays bile. nañ fonk pays bile. nañ ko xormaal. nañ xormaal pays bile. ki ko fi wutu baay. fii ku fi wutu baay. mat na baay. mat na sëq. mat na baay. mat na baay. daaw fii. daaw fii. ak ren. ak ren. ndam li ko yàlla jox. ndam li ko yàlla jox. ñëpp àdduna bi yëpp ñu ngi koy sagoo. àdduna bi yëpp ñu ngi koy sagoo. buñ sañoon a fecc danañ fecc ñun. buñ sañoon. buñ sañoon a fecc. buñ sañoon a fecc. danañ ñun dañuy fecc. buñ sañoon a woy. buñ sañoon a woy. danañ ko woyal. danañ ko woyal. buñ sañoon a buñ sañoon a sor xolle. danañ ko danañ ko ko defal. ndax. ndax. ba ko yàlla dimbalee. ba ko yàlla dimbalee. waa Soudan yaakaar ko. waa Soudan yaakaar kii di xalifa bi. dafa fekk. dafa fekk. Nations Unies. Nations Unies. bi ñuy wax ci làmmiñ. bi ñuy wax ci làmmiñ. te bàyyi xam ko moom. te bàyyi xam ko moom. ña nekk Soudan. ña nekk Soudan. la ca ëpp seen doom yaa ngi fii di jàng. la ca ëpp seen doom yaa ngi fii di jàng. Medina yar leen bàyyi Medina yar leen bàyyi yar leen. loolu moo tax mu yomb ca moom. loolu moo tax mu yomb ca moom. moom moo leen moom. moom moo leen moom. moo leen xilif. moo leen xilif. lu ñu am ci barke baayam lañ ko xamee. lu ñu am ci barke baayam lañ ko amee. moo tax mu yomb ci moom. moo tax mu yomb ci moom. feneen it bu fa demoon noonu la yombee ci moom. feneen it bu fa demoon. noonu lay yombee ci moom. kon dañ ko war a sant yàlla. kon dañ ko war a sant yàlla alhamdulilah. ci suba de am na ñu ma seet. ne ci suba day am nañu ko seetsi si. mu ne leen. mu ne leen. ba leen ñëw julli jumaa ñibbi. ba ñëw julli jumaa ñibbi. ku ci julli jumaa ñibbi. ku ci julli jumaa ñibbi. boo demee looy joxe sëriñ ca. boo demee loo joxe sëriñ ca. looy joxe boo demee looy joxe sëriñ joxe naa sama hadiya. joxe naa sama hadiya. gisoo sëriñ bi. gisoo sëriñ bi. dégluwoo déglu woo waxam te ne mooy sa sëriñ. te ne ñëw rek. lu dul ñëw rek. joxe joxe. dellu dellu. boo ne bëgg nga day. boo bëgg nga day. man de gëmu moom day gëmu ko. ñi bëgg dañu ngi toog. ñi bëgg daal ñu ngi toog. kon nag yéen ñi bëgg. kon yéen ñi bëgg. ma ànd ak yéen ci bëgg gi. mu xànd ak yéen ci bëgg gi. maa ngi leen di ndokkeel. mu ngi leen di ndokkeel. ku ci ne mbëggee la la indi. ku ci nekk mbëggee la la indi. gu mat gu mat sëkk. nga jël la nga am. nga jël la nga am. joxe ko te xeeb ko. joxe ko te xeeb ko. ngir mbëggeel gu mat sëkk. ngir mbëggeel gu mat sëkk. nuyoo. nuyoo. toog ci suuf. toog ci suuf. ngir mbëggeel gu mat sëkk. ngir mbëggeel gu mat gis nga coow li li muy bari bari. gis nga coow li li muy bari bari. sama wax ak sa waxi keneen. sama wax ak waxi keneen. waxam rek la ñuy déglu. waxam rek la ñuy déglu. feeg waxut rek wax ji jeexagul. feeg waxut rek wax ji jeexagul. kon nag kon ku fexe ba tardé wax jooju. fexe ba tardé wax jooju. ah man la gisuma lambaaw. moom day gisut lambaaw. kon nag taalibe nañ xam loolu bu baax a baax. kon nag taalibe yi nañ xam loolu bu baax a baax. bu ñu xooyatee sëriñ bi. bu ñu xooyatee sëriñ bi. chaise bi nga xam ne ca la war a toog. chaise bi nga xam ne ca la war a toog. bu ci kenn toog. bu ci kenn toog. boo ca toogee. boo ca toogee. image bi jël ko. image bi jël ko. sëriñ bi ñëw. sëriñ bi ñëw. nga nga jóg. dafa mel ni sa place nga ko xabal. dafa mel ni sa place nga ko xabal. te xable la kat. te xable la kat. seesam bi. seesam bi kenn waru ca toog. kenn waru cee toog. bu toogee ba jóg. bu toogee ba jóg. dem na. dem na. boo ca toogaatee. boo ca toogaatee. da ngaa sàkku barke. da ngaa sàkku barke. loolu mooy teggin. loolu mooy teggin. ba ca topp. ba ca topp. yéen samay mbokki taalibe. yéen samay mbokki taalibe. maa ngi ñaan. ne mu ngi ñaan. nañu bàyyi ci gàmmu yi. nañu bàyyi ci gàmmu yi. ak lu xew. ak lu xew. am ku yëkkati micro. am ku yëkkati micro. naan haddi yaay baay. naan haddi yaay baay. haddi yaay baay. haddi yaay baay. tegtalul dara lu may bañ a joxe addiya. tegtalul dara lu may bañ a joxe addiya. loolu dong la. loolu dong la. haddi ku ko bëgg joxe. haddi ku ko bëgg a joxe. te bëgg a hormaal kan koy jox. te bëgg a hormaal kan koy jox. da nga koy dajale balaa ñëw. da koy dajale balaa ñëw. bu ñëwee. bu ñëwee. ñaanal leen. ñaanal leen wax la mu war a wax. wax la mu war a wax. nga jox ko ci sutura. nga jox ko ko ci sutura. waaye seet leen rek. waaye seet leen rek. fu ñu dem mos a waxee hàddiyaay baay. fu ñu mos a waxee hàddiyaay baay. ñu dajale ko. ñu dajale ko. sëriñ boo ko jox. sëriñ boo ko jox. dana ko rus dugal ci poosam bi. dana ko rus a dugal ci poosam bi. da koy téye rek. da koy téye rek. wala moo xam ku mu jox mu ko. wala moo xam ku ko jox mu téye ko. jagut jagut. nañ ko ba. nañ ko ba. loolu mooy mbir mi. loolu mooy mbir mi. nit dana yàqute du ko yëg. nit dana yàqute du ko yëg. ah nañ def ndànk de. nañ leen def ndànk de. nañ def ndànk de. leen def ndànk de. nañu wóor ne. nañu wóor ne. bëti Maulana Cheikh Ibrahim mu ngi janoog ñun. bëti Maulana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu ngi janoog ñun. Cheikh Serigne Mbaye dey. Cheikh Serigne Mbaye dey. am na amoon na dëkkandoor ci kër Madiabel. amoon na dëkkandoor ci kër te dëkkandoor ba man moo ma ko wax. te dëkkandoor ba moom moo ko ko wax. dañoo julli gee ba pare. dañoo julli gee ba pare. mu lëng ko ñu dem ba fële. mu lëng ko ñu dem ba fële. mu ne ko diw. mu ne ko diw. maa ngi lay moytandikuloo. maa ngi lay moytandikuloo. nga dëkk ak nga dëkk ak nit. mu dëddu la dem halaaxira. mu dëddu la dem halaaxira. ngay soppandiku ci njabootam. ngay soppandiku ci njabootam. loo xam ne du noonu. loo xam ne du noonu. te mu ngi janoog yow. te mu ngi janoog yow. mu ne ko abaay. Ah, mu ñu nekk àllaaxira ñu ngi janoog ñun ñu nekk àllaaxira ñu ngi janoog ñun mu ne leen mu ne dara humpu leen ci ñun mu ne ko dara humpu leen ci ñun ñun kay ñoo leen gisut ñun kay ñoo leen gisut te loolu te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko xare badar xare dar bañ reyee sangi màkka yi bañ reyee sangi màkka yi ñëpp ne ci kamb ñëpp nepp nekk ci kamb medd nëpp medd nëpp muy wax ak ñoom muy wax ak ñoom luy seen tey luy seen mbir tey. Seydina Omar laaj ko. Seydina Omar laaj ko. lu mu ko wax. lu mu ko wax. mu ne ko yéen a xamul waaye waaye dégg nañ li may wax. mu ne ko yéen a xamut. waaye ñii dégg nañ li may wax. nag kon nag. foofu lañ sukkandiku. foofa lañ sukkandiku. waaye li ma bëgg a wax daal. waaye li mu bëgg a wax daal. nañ xeesal suñu taalibe. nañ leen xeesal suñu taalibe. nañ xeesal suñu nañ leen xeesal suñu taalibe. waa sëñ Baye Serigne Aliou waa kër. sëñ Baye sëriñaalu Aliou Cissé. ñëw leen. ñëw leen. wuy si Baye. wuy si Baye. yéen ci bunta Baye. yéen ci bunta Baye. waa liggéeyal ngeen liggéeyal ngeen Baye bay bëgg a dee. liggéeyal ngeen Baye bay bëgg a dee. waaye ñëw leen rek. waaye ñëw leen rek. kër Serigne Ousmane Ndiaye. kër Serigne Ousmane Ndiaye. takkaayu leen ñëwaat. takkaayu leen ñëwaat. Baye Cheikh Omar Touré. Baye Cheikh Omar Touré. ñëw. takkaayu leen ñëw Baye Ibra Fall ñëw leen ñëw leen waa kër Misiri waa kër Misiri ñëw leen ñëw leen waa kër Wulu Ndax wi waa kër wul Ndax wi ñëw leen ñëw leen waa Caat waa Caat ñëw leen ñëw leen waa Nigeria waa Nigeria ñëw leen ñëw leen waa Soudan waa Soudan ñëw leen ñëw leen waa Afrique waa Afrique ñëw leen ñëw leen waa Asie waa Asie ñëw leen ñëw leen bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo servi yëpp yëpp nga daw ñëw ñëw Medina fi sërif yépp a ngi daw ñëw ñëw Medina fi mu ne. parce que mooy làqukaay bi. ndax fii mooy làqukaay bi. ku fi dugg mucc ku fi dugg mucc. ku fi dugg mucc. ku fi dugg mucc. yéen ñëpp fekkee ngeen Sénégal. yéen ñëpp fekkee ngeen senegal suñ diggante ak Mauritanie. suñ diggante ak Mauritanie. fu kër ak sëriñ ne. fu kër ak sëriñ ne. senegal gii. senegal gii. naar nekk fa. naar nekk fa. dugal nañ la camion indi la ci jumaa ji. dugal nañ la camion indi la ci jumaa ji. ñaani sëriñ bay nanguwut. ñaani sëriñ bay nanguwut. ah kay. yàlla ngay rawukaay. yàlla ngay rawukaay. yàlla nañ raw ci yow bay rawal ñeneen. yàlla nañ raw ci yow bay rawal ñeneen yaa rabbi. nangu na. nangu naam. te ñëpp teg nañ ci seen bët. te ñëpp teg nañ ci seen bët. yàlla ngay jéggukaay. yàlla ngay jéggukaay. yàlla nañ yàlla nañ jégg ci yow bay jéggal ñeneen. yàlla nañ jégg ci yow bay jéggal ñeneen. fii li fi génn ci alal di dem ci jaami yàlla yi bés bu nekk kenn xamul nu mu toll. fii li fi génn ci alal di dem ci jaami yàlla yi bés bu nekk kenn xamul nu muy toll. kon ñu ngi jéggal nit ñi. kon ñu ngi jéggal nit ñi. lépp am na fi. lépp am na fi. kon nag kon nag. jaadu nañu xam liñ xam. jaadu nañu xam liñ xam. téye ko fonk ko téye ko téye ko ak junney loxo ak junney loxo bu ko kenn sàggane bu ko kenn sàggane ñépp nañ xam loolu wax jaa bëgg a gudd wax jaa bëgg gudd waaye dama bëgg ñun ñëpp ñu bokk jëriñu waaye dafa bëgg ñun ñépp ñu bokk jëriñu sëriñ bi sëriñ bi gis nga buy dépasse gis nga buy dépasse ñun ñii ñëpp ku ne mën na toppal boppam ñun ñii ñëpp ku ne mën na koo toppatool boppam. buy jabar. buy jabar. ku nekk. ku nekk. yaa jël sa xaalis takk sa jabar. yaa jël sa xaalis takk sa jabar. buy bay. buy bay. ñoo wutal suñu bopp jiw ñoo wutal suñu bopp jiwu. ak engrais lépp ñoo koy def suñu bopp. lépp ñoo koy wutal suñu bopp. buy commerçant bi. buy commerçant bi. na muy def ba am ba am njaayam jar. na muy def ba am njaayam jar. moo koy def moo koy def. xam nga lu ñu fi ëndeem. nga lu ñu fi ëndeem. suñ tooñante yi ñu ni neen. suñ tooñante yi ñu ni neen. ak yàqante bi ak yàqante bi ak jëwante bi ak jëwante bi ak lorante bi ak lorante bi dem ba dis gan na ci ak i bàkkaar dem ba dis gan na ak i bàkkaar suñu xol yi lëndëm suñu xol yi lëndëm ñu jaaxle ñu jaaxle xamatuñ fuñ jëm xamatuñ fuñ jëm dong moo ñu fendi loolu dong ñu fendi gisuñ nag fenn foo xam ne gisuñ nag fenn foo xam ne buñ fa demee buñ fa demee diisaay boobu teggeeku ci ñun diisaay boobu teggeeku ci ñun xamul ci àdduna bi fii rek lañ ko xamee fii rek lañ fii rek lañ ko yaakaaree fii rek fii rek kon kon nag hubbil nañ la ñu xol yi hubbil nañ la suñu xol yi nga raxasal ñu ko nga raxasal ñu ko mu set mu set ba ñu gëm yàlla ba ñu gëm yàlla lu waay xam lu waaye xam ñu bàyyee ko ko ñu bàyyee ko ko te dimbale ko ca te dimbale ko ca du ñu xeexante duñu xeexante duñ jëwante duñu rayante duñu du duñ ñàkkante ku nekk bëgg sa morom ku nekk bëgg sa morom na nga bëgg na nga na nga bëggee sa bopp na nga bëggee sa bopp yéen yéen taalibe yi yéen sama mbokki taalibe yi déglu leen woy Ibrahima Diouf déglu leen woy Ibrahima Diouf mu ne mu ne jàpp leen seen kurus jàpp leen seen kurus tey wirdo tey wirdo te bu leen di ŋaayoo te bu leen di ŋaayoo lépp lu ñu leen wax lépp lu ñu leen wax na leen neex na leen neex ngir Sidi Barham na ñëpp dégg loolu na ñëpp dégg loolu salaamaaleykum wa rahmatullah